Touba ci kanam ku ko ci xam lu ngeen message rek naa ko sasoo wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri man abaat Touba ci kanam moom ku ci bokkut xaw ma man looy looy bokk ñi nga dégg ñu naan bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi léegi badar amut Touba ci kanam am ah ñoo ko sikkar di ko wax bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi badar nag bakkan lay laaj te ngërëmul yàlla lañ doon sàkku lil fuqara muhajirina alladina uxriju min diyaarihim wa amwalihim yabtaxuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruna allaha wa rasula ulaika hum sadiquna léegi nag ngërëmul yàlla loolu ñu ngi koy dakkee ci Tuuba a kanam ay xeej ak i ñaw kay jeesee ki fett la woon tey jii booy def muy am kon nag bu fekkee ne boo fekkee woon badar doo daw da ngay jeex kon nag bi nga fekkee Tuuba a kanam noo bëgg def loolu am laaj la bu ma lay laaj yow mii di taalibe bi tey mu wóor na ne boo fekkee woon badar sëñ bi xeex da ngay xeex léegi sëñ bee war a jëm ca kanam nooy def yow maa ngi lay laaj loolu yow murid bi lan mooy bu doon badar dañuy jeex Touba ca kanam mooy ndax Serigne Touba bu fekkee am na dara dara dara lu mu bëggoon ci àdduna mooy dëkkam bii di Touba dundam ci yàlla yonent bi la ko def aw fépp bu ko amee mu bëgg ci àdduna Touba gii la muy nekk njaareem mag ñi sax bu ñu yoree aw sàkket te bëgg sëriñ Touba dindi xar kanam ba bañ jàkkaarloog moom dañ koy romb naan xëcc leen mu jëm tuubaa mu dindi kaala ga di muuñ ba ñuy gis si kimba liggéey bii nag du liggéeyu genn kër du liggéeyu benn tarixa liggéeyu taalibi sëriñ Touba yépp la liggéey bii man na maa waat sëriñ Touba ne sëriñ bi nangu na liggéey boo xam ne keroog biñ sukkee ci kanam sëñ Muntaxa dafa wax ne mboolem kuréel yi fi ñëw seen kuréel bii laa ci ëpp yaakaar fu ngeen bëgg mu àgg da da da ko wees lii daal rëbbati ma ci te am naa yàqin tam ci ci kanam man yéem dama cee yéemu ci Tuubaa ci kanam ku ko ci ku ko ci xam lu ngeen message rek naa ko sasoo. waaw naa ji téeméeri junni. te itam da nga am tuyaaba yoo xam ne boo lëggee. boo la yéeg sa borom da bég. loolu moom xam naa ko moom. tur doy waar la. bu doyoo doy waar Tuubaa ci kanam. tur wu doy waar la. suñ Tuubaa gii nga xam ne moom rek lañ bëgg. te Tuubaa di ci kanam. lu sëñ Tuubaa bëgg ci Tuubaa mm-hmm. na mu la ma déglu faw sëy ni mm-hmm. Tuubaa ci kanam mii mm-hmm. ko dundal dana lépp lu ñu ciy def moo xam ci nguur la war a jóge moo xam ci xilaaf bi la war a jóge lépp lu ciy def rek Tuubaa ci dem ba mën koo defal boppam alhamdulilah man noonu laa ko noonu laa ko loolu ku mu doy dara dootu la ci àdduna sëñ bi bu nee leen gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax liggéeyal Serigne Touba rek ci lañ mën a rawantee te képp koo xam ne bëgg nga li ngay def Serigne Touba gërëm ko bee boo nga takku yeew sa ndigg li ba mu dëgër ànd ak waa Touba ca kanam fas yéenee liggéeyal Serigne Touba ci Touba ci kanam. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi